salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam ah tey jii nag dañoo ñëwoon ba fii ci Bambaali fekk fi suñu wëllëre suñu xarit suñu nit suñu sëriñ sëriñ Moxtaar Moxtaar ah moom nag ginnaaw am na li ko yàlla may dañoo bëggoon rek mu leeral ñu dara ci benn xew-xew bu bari coow buy am ci dëkk bi sëriñ bi ñu bàyyi la nga ginnaaw ñuy egg ci laaj yi. awus billahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ma sante yàlla damay tudd ci nit bi di sant sumay ñaari waajur di nuyu monde entier yëpp yëpp yu may déglu maa ngi leen di nuyu di bu ma dëkk fi nga xamante fi laa yeewoo di Afrique ñëpp di wax. rafetlu na seen ñëw fii jërë ngeen jëf. ah sëriñ bi ñun kat gis gis nañu ginnaaw temps yi yëpp Sénégal bëri na coow trop trop trop trop foo tourné ci dëkk bi lenn rek la ñuy wax combat boobu dox ci diggante Modou ak Balla Gaye ki dëkk Parcelles ki dëkk Géejawaay comme que nag yow am na lu la yàlla may dañoo bëggoon. nga wax tuuti may cappal yi ci sa xam-xam tuuti loo gis ci combat bi. dëgg la damay sawar kii tontu laaj bi ñu ma laaj dama ciy sawar ma tontu yi ndax Balla doomu Sénégal la Modou Lo tamit doomu Sénégal la ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ak doomu Sénégal ba tax na kam-kam bi nga xamante ne moom la ma yàlla may ma war ci jubal doomu aadama. dama ciy dimbal doomu aadama làmb ji laata amul ñëw dama ko taxaw gisu ko ba takk naa liggéey suma rawaan moo nekk lii suma rawaan daal lii suma tànk rawaan daal bii dafay jàpp bii dafay dem bii lépp lu ma bugg a xam dinaa ko xam ba takk na combat bi combat bi li ma ci gis bari wuñu bari na li ma ci gis mooy amuñu mbëri boo xamante ne dafa ñool amuñu mbëri boo xam ne dafa gàtt mbëri bi nga xamante ne dafa njool mu nekk doomu Casamance man gis naa moom dina xeexi waaye ki nga xamante ne dafa nekk doomu parcelle bi nga xamante ne dafa gàtt moom dina bugg tamit ñu xeexi waaye ci biir feesu boobu deret bu bëri ñu nag génn foofu ci ci ji ci suñu làmb ji man sëriñ bi man maa wax loolu man sëriñ bi man maa wax loolu te képp koo xamante ne dangaa dindi suma wax di nga koo gis man képp ku maa gis nga wax li maa wax dinaa tey di nga kaa gis waaw loolu laa amoon lu wax ci ma leeral ko pour Sénégal yëpp ñu xamu man li may wax jubee ñi li may wax suma ñi su ma rawaani mi ngi nii rawaani mi ngi bu fekkee dafa am beneen laaj boo bëgg a laaj nga laaj ko ma tontu la jërëjëf. ah mbokk yi kon ñoo ko déggandoo sëriñ bi beneen laaj bi mooy ndax mën nga ler leeral ci kan mooy daan. man bi may wax suma biir wax dafa mel ni yow man damaa bugg su may wax nga déglu ma nga déglu ma ak sa xeli paa nga déglu ak sa xolu da nga may déglu nee naa lii suma rawaani la ki nga xamante ne mooy daani mooy ku gàtt ki mooy daani mooy daani ku ñoolu ki kon daal suñu dégg man maa mooy daani man maa wax loolu képp ku dindi ma wax di ñu ko gis amu na ku fi nekk koo xamante ne benn jigéen ñi la xaw ma nu moom mi ngi wax moom bu waxee ma dégg lu mu wax man dinaa julli lu mu wax ma def leneen te man li may def mooy am kenn du ci mënu dara man maa wax loolu man Serigne Mbour daal ma daal ndax su ma kàmm dama ko teg fu mu jërëjëf. ah kon waa Sénégal daa mel ni wax ji farankulaay na déglu nañ sëriñ Muxtaar Muxtaar lu mu wax ah nee naa de moom ci xam-xamam bu gàtt ku daan ku gàtt ki. mooy daan ku njool gi ah man maa ko wax moo ko wax sëriñ bi dëggal na nag ah ñu bàyyi bu bis ba nag ñu xool am nañ ci yaakaar lool jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di wax ñëpp maa ngi déglu ñëpp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu jërë ngeen jëf jërëjëf